njàkku doomu njàkku mooy lan man doomu njaago ah, ma njàkku tu ke yama bara ni de ah, ne sembe ten nim cere njak ndam fran wat tyson 2 banya xani na sembe ndam li ke ko jigalirul telo nu mundu wala banya xani na sembati fran juróoti rek li na sembati ka ka kon laal du mundu may kon ngali amma sen ñu ngalu ni bi ngeen soxna nun fiiru un ko waatul amma sen disul amma fiiru un ko waatul li na sembati Franc no sima njaku 100% pa ñak ma njaku tugundi wundi no sima njaku ya li mooy lan li ci la bokk li ci la bokk ah li wóorul de merci beaucoup ah waaw waaw yàpp baam la ñuy dundee ñun. yàpp baam la ñuy dundee. ay njaago lañu. ay njaago lañu. ay njaago lañu. ay njaago lañu. ay njaago lañu. ay njaago lañu. yàpp baam. yàpp eh, baam. maa ngi lay ziar. waaw maa ngi delloo ziar. tur bi nan la. man Anna Gomis. Anna Gomis waaw. loo bokk ak Fra. sama rakk la ñoo bokk benn kër sama suñu papa yi ñoo bokk nday ak baay waaw ñoo yarandoo suñu rakk la waaw. noo ko gisee tey ci làmb. waaw waaw ni ma ko gisee maanaam ci làmb ah, mooy am na avenir di xanaa li ñuy def rek mooy di ko ñaanal. fi mu bëgg a lekk yegg ci làmb moom moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defaral te mu doon li gën ci moom parce que comme li ñuy wax ne nit boo bëggee dara na nga ko gëm na ci am gëm-gëm te ñun gis nañ ne gëm na ko ndax su ko gëmuloon tey jii fi mu toll macha allah du fa yegg ñun daal dañ koy ñaanal ci kaw ca kanam bu doon li gën ci moom waaw loolu lañ koy ñaanal waaw loolu. merci beaucoup. merci à toi. ñoom ñaar la Bambay waxal. la Sainte Marie. ak doomam ja Insa Insa nu Maryama ruuxullaahi mooy mujj ñëw ci weeru gàmmu lay ñëw fil bisri Allah Insa ibnu Maryama ruuxullaahi mooy mujj ñëw ci weeru gàmmu lay ñëw fil bisri Allah bu ñëpp mànkoo woon naan jërëjëfe Maryama nabi dafay ne ma mel ni dootul jeex bu ñëpp man ah neex na hélas yaa dégg way wa Isa ibnu Mariama la ñuy way ah lu neex a ngi nii waa léegi ana ana bi ana maire bi waaw li mu def tey noo ko gisee macha allah macha wax mu waxee rek nee na Ama la soxla de. <laughs> nee na Ama la soxla. nga ne nee na Ama la moom Franc. ñun moom lañ soxla. bu lay noonu lañ ko bëggee. Ama Sène disul ci. ah. Ama Sène ah, mhm. moom la ñuy xaar. moom la ñuy moom lañ bëgg a gis fu mu toll nii wóol nañ suñ doom. kon dégg ngeen yaay ma ngoongu wax na kii defe naa mooy Marie Louise ah? Marie Louise. Ah, man may loo bokk ak moom. ñoo bokk yaay may seen taaw. waaw mais Franc xale bu baax la yaru na déggal nañu respecté nañu xanaa di ko gërëm rek kontaan ci victoire di ñaan chaque jour rek affaire yi gën a yokku ci kanam vraiment daal ñëpp kontaan nañu di ñaanal waa koñ bi ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi sonn ci vraiment daal gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp waaw chapeau daal. ñu ngi koy ñaanal daal fu mu bëgg rek mu yegg fa ca kaw ca kanam. Franc ban genre nit la. Ah, am na waaw am na fulla aussi bëgg na li muy def daal waaw loolu moom xam naa ko ci bari ci moom waaw. dégg naa ko sànq laaj naa ko sànq mu ne tay mu ne Eumeu Sène la soxla ndax ama Sène moo andi woon Tyson 2 loolu loo ciy wax yow en tant que magam. waaw xam nga Eumeu ma duma ci mën a wax dara ndax dama ko bëgg. ko bëgg dama bëgg Eumeu. sama si sama fan si la bokk ñu mën ñoo Modou Lo vraiment mais comme moom la bëgg ah mais comme sport bee ko laaj daal. mais ñoom ñaar bu ñu doon bëre nooy def Eumeu ak a ah que le meilleur gagne oui. <laughs> kon Eumeu Sène magu Franc mooy mbë Eumeu Sène magu Franc maanaam Eumeu Sène lay supporté moom. Oh, ñoom ñaar ñëpp lay supporté ah que le meilleur gagne man damaa Franc waaw que le meilleur gagne bu ma sañoon aussi ndam bi ñëw sama kër <laughs> non loo koy wax mook tey tey seen demi daanu tam loo koy wax. moom maa ngi koy ne ah xale bi de ngi noonu yaa ko mag xale bu ndaw la nag mais nag ah mooy loolu daal mënu ma ci wax leneen. ki doon bëre loo koy wax muy Tyson 2. Tyson 2 maa ngi koy félicité di ko ñaanal bu beneen yoone yàlla may ko leneen lu gën ci moom daal parce que affaire bi foo la victoire la rek waaw di ko ñaan rek euh, yàlla may ko leneen daal waa di ko encouragé nag. kontaan ci yow Marie Louise kontaan naa ana maire bi. non xam naa non maire bi daw. non waxul. waxul non maire bi dama koy nuyu man ba pare jël Marie Louise. may la nuyu maire bi am naa droit nuyu ko dama lay nuyu non xam naa lool mais dama koy nuyu. yaay booy maa ngi lay ziar. looy wax sa doom Franc. man kay koy ñaanal rek mu gën a dem ci kaw rek. mu gën koy ñaanal. doom ju baax la daa mel ni de. wallaay. mu ngi lay toppatoo bu baax. maa ngi koy toppatoo bu baax mu ngi may toppatoo bu yaa ngi koy toppatoo mu toppatoo. waaw koy ñaanal. maa ngi koy mhm. nga mu nekk roi des arènes. ah man kay kontaan naa trop. waaw. Mhm. kontaan ci yow yaay. kontaan naa trop kontaan naa trop trop trop.